c'est Paris le site VIP People le site des grands moments le site des grands événements Je suis venu ci Paris le 22 avril un événement multidimensionnel un événement spectaculaire marquant l'anniversaire de Wali Balagosek ici à Paris au Dock Pullman ànd CSF Kiss ak Marine Music Musique Je Tange jiitu leen biir Paris di xool gaañ événement bi à Paris à une semaine avant l'événement pour que dugg ci xuruxaat yi le gaañ lañ koy defee ndaxte ba ma duggee aéroport un rapport gagne dans ñu le 22 avril lu xew anniversaire

rendez-vous le 22 avril d' accord je vous l'avais dit le rendez-vous c'est le 22 avril su ngeen gisee Tange ak micro rek xam ngeen ni xew-xew am na ban xew-xew la muy anniversaire ku koy def Wally Ballago Seck fan la fii ci biir Paris moo tax su ma ñëwee ba Paris ñu ne ma Wally Ballago Seck foog vous daje Gab wax ak moom salaamaaleykum Gab. maaleykum salaam Tange. c' est l' ami de Wally Ballago Seck. doon nangu. sa bés ñëw na muy le 22 avril naka ngeen koy waajalee. suñu bés noo waajaluñ ko dañoo pare. kon le ngeen ni dèjà. pare nañ gars yi lañu kon waxal ak xale yi ndaxte waal yi daf ma yónni bi may jógee Dakar ne ma temps damaa sonn ci deux heures de concert bagage yi ma yor xolal quatre heures de concert dama bëgg a vingt deux heures guuxante ba ñaam ran ba gàpp yaay borom Paris waxal ak xale yi bon comme ni ñu ko waxee ah dama bëgg teel a ñëw xam nga ndànk dugg tranquille toog ñu bëggee comme ni ñu ko waali waxee teel leen a ñëw jël seen jée bëgguñu ba kenn ku am leen lu la gab dama dugg léegi ci salon de coiffure yi ñu ne ma cheveux naturel amatu fi ma dugg ci boutique prêt à porter yi ñu ne ma góor ñi nañu lépp lu fay slim fit luy costume ak cravate mais gab le 22 avril naka lay mel ak Bercy le 22 avril ba non beneen affaire lay doon parce que dañuy jugee le 22 dem le 29 kon warul seet temps le 22 xale yi pare nañ pare nañ pare moom aman dañoo pare dañoo jógee Bercy ñu ne lalal basang ñu dellu Ndakaaru waari ne riigu riigu yamatuñu foofu mu ne ma ma chance ñu jógati foofu ne Mirna muy ñetti son yu bees tàq yoo xamante ne ne na fii lay joxe exclusivité bi gàpp ana capot yi tuddal seen tur. capot yi capot yaa ngi ci dëkk bi. waaw pare moo xam ne pare nañ ñoom Xaadim Kaana Dame Soufra Atou gars yi ñëpp a ci biir ñëpp ñëw woo gars yi waa Belgique ñoom Livre waa Italie sama gars yi ñoom Tafa Kara Lamzo bàyyiwuñ kenn quoi waa Atlanta ñoom Griff gars ñu ngi leen ñoo ñëw leen ñu feete anniversaire waale fii ci Paris yéen a ma gën a xam du yomb temps les de la diaspora gab nee na du yomb te nee naa leen du yomb du Paris Italie la Espagne la Suisse la Suède la Londres la États-Unis sax dafay teew le 22 avril bu 22 heures fekkul doog Pullman su yeboo nga dem tëddi ndaxte doo dugg ci salle bi Wally ñi ngi ñëw. tout sera neuf. maa leen ko waxoon muy le 22 avril di anniversaire Wally Ballago Seck fii ci Dock Pullman ma ñëw fii nag di xool waa Paris naka lañ koy préparé ma ñëw koo xamante ni mu ngi jógee ba Allemagne uniquement pour rendez-vous boobu salaamaaleykum na nga maa ngi tudd. yow noo tudd. maa ngi

xam na la musique mais pas les titres des chansons. xam nga la musique donc le 22 avril tu es invité au Doc Pullman. Jonathan euh, neex merci beaucoup ñoo ko déggoo doo ko doon kaay Allemagne moo tax dama leen ko c'est le grand rendez-vous ce sera le 22 avril au Doc Pullman ak kii Wally Balago Seck kiis dama Paris du sedd te du yomb gaa ñi ku yéex ñàkk xoolal ku fa 22 heures fekkul doo dugg ko wax